ziar ziarata mbokk internet yi nuyu nañ leen ziar nañ leen fi ñu leen daan nuyoo jërëjëf euh, wax ne tey si dañ déplacé waa ñëw ba fii ci euh, ñoo ngi yëmbal ñoo ngi Kër Massar ñoo ngi Boune ñoo ngi plus précisément euh, tout près de Marin Marin mi ngi nii ah tout près sama gars yi seen émission lamb rek ah bëree kese ñu ngi ñëw seet si kan l' espoir de l'écurie ressortissant de Fatick en l'occurrence maa ngi toog ak kan Boy Boylo euh, l'un des meilleurs ah bu ñu waxantee dëgg rek en terme de palmarès buñu xolé ci palmarès ñu def benn tasse noire la am ci ci ci carrière am benn tasse noire kessé li ci dess lepp ay victoire la kon tay Boylo lu ñu seeti fas ci seq nañu waxtaan ah mi ngi leen a toog ak kan mafia bi staff bi waaye ngi ni ay bandi lañ ñu ngi nii tok njaboot gi sew gi mi ngi noonu ceeb bi sew gi tamit ñew nañu tok parce que Boylo machallah yalla yàlla daf ko nattoo mu nekk xalé bo xamné dafa am ay soppe ci ay moromam mais aussi dafa am ay xale yu ndaw yoo xam ne ni ko gars yi di waxee moom rek la ñuy topp donc loolu lépp tamit ci sant yàlla la bokk te ñu déplacé wu fas yéene séq ak moom waxtaan waxtaan ak moom ci carrière am fi mu jógee fi mu jaar fi mu toll fi mu jëm waxtaan ak moom ci tolluwaayu làmb waxtaan ak moom ci tolluwaayu réew mi te tout et tout et tout sama gars yi fii ci Kër Massar Boum Yeumbeul Comico Marin seen émission làmb rek bëre kese Boy Lo équipe de sotti fan bu Fatick mooy sama invité rakk ji maa lay ziar ñu ngi leen siyaar bu baax a baax sëñ bi. au niveau université daal. xam nga déwénu ko ren. fekkee déwén yàlla yàlla gën a jégal. ñu teew ko ay déwénu déwén te déwén dàqal ñu ren. ci barke yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. di ñaanal ñi nga xamante ne tey jii nii jiitu nañu. nekkul seen yaafus moo leen yóbbu. ñu leen di ñaanal yàlla na suuf oyof seen kaw. barke yéen te yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xamante ne ñoo fi des. ñu ñaan gudd fan ak wér gu yaram. yàgg di ko feetoo moo nekk tabaski bi di ci ñaanal ñëpp nag jàmm di ci ñaanal sama gaay yi ñun ñëpp jàmm di bëggee ñëpp nag bu baax a baax. Mhm. bisimilah Seydina dalal jàmm. looloo nuyoo bi di xamal gars yi rek ne démb la woon tabaski passé nañ ko ci jàmm sant yàlla nan nga dundee tabaski bi. waaw ah, sant yàlla bu baax rek sant yàlla bu baax a baax a baax a baax parce que jàmm bi mu amul leen lu muy def ñu sant yàlla. su mhm. fekkee nañ ko ci jàmm daal. Mhm. waaw sant yàlla moo ci am solo la xar bi mbëkku la. noonu laay hmm? sa diggante yàlla wax waxal ci suuf rek coow jibul baat bi mbokku la naaj hmm? ah? sa coow jibul kon daal comme d'habitude euh, fête bi ñëw na fekk ci jàmm yàlla suturaal nañu fête bi passé na ak jàmm n'est-ce pas mhm. mais bi tey ñu ñëw la yow ak bi mafia bi yéen ñëpp everybody euh, ngeen comme d'habitude ah foo kafre comme ça war a teg seen kermesse genre yooyu noonu loolu ci ban cadre la waaw ñun loolu la ñu xam hmm. ñun loolu la ñu xam suñu koñ bi wax dëgg neex yàlla maag booy moom muy loolu sant yàlla nag bu baax a baax parce que nit moom boo nekkee benn di nekk ci benn milieu bi ngay dundul surtout làmb tey jii waa koñ nga amul lenn li nga war a sëy moom bu dul jàmm jàmm ju bari waaw jàmm ju bari wax dëgg ñaa nga nangu leen tamit lépp lépp loo xam ne seen bëgg-bëgg la rek day nga teg si tamit si tànk hmm. loolu mu am solo quoi noonu la fa dem waaw noonu la fa dem booy gaaw seen caan bi ah seen level bi nga gaaw tuuti teg seen level bi jëmale ko suba comme ça foog mu naan level deuxième bala may dem on est d' accord instant bi euh, booy booy tey est ce que tey di woon jour ñaani néew dool genre yooyu noonu waaw booy ñu ngi nii wax dëgg neex booy ñu ngi nii ñaan li ma nekk seen ñaan instant bii nii mu ngi nii hmm. booy ñu ngi fi tey jii nii moo nekk seen kilomètre waaw mais yow mbër nga démb la woon départ bi sax hmm, commencé ngeen démb waaw démb la woon démb lañ commencé tey jii nii mais démb ma wax dëgg neex yàlla waxoon na waaw mais mbëri xam nga mbëri tamit am na ci ñoo xam ne dañoo am technique am na mbëri yoo xam ne duuru julli lendemain bi dañu aligné lu nice dem seeti grand yi grand yi jàpp ci combat yi fa la ñuy dem ne dañuy nuyoo ñu mais dañuy ñaane ndéwnal maa ko wax mbëri noonu la ñuy def dañuy dem ñaane ndéwnal waaw loolu dëgg la am na ñoo xam ne dañuy génn waaw solo sañse mais ñu ñu ay Baye Fall lañ hmm. ñu ñu gëm moo nekk ne bu ñu kiyee ba pare moom ñoo ñu ñëw toog <laughs> ceene yaa ngi dégg daal jàmm daal ñun loolu la nga xam dal jàmm happiness loolu la nga xam comme d'habitude mais booy sa combat bi passé gars yi dañ la mere woon de gars yi gars staff dañ la mere woon maa ñëw kay fekk la ni kay ñu tànc la jaan nar laa tegal lu métti ma ne non gars yi leen ko jégal leen ko garaawul bàyyi mu sedd gars di kaas naan non kii dañ koy tàndur par quatre jour boobu man maa la pele dal bañ jégal la waaw dañ daan naroon def lu métti loolu mën na ñàkk ci làmb moom wax dëgg neex yàlla jàppee moo ko dara bëgg rek hmm. parce que gaa yi de tam bu la bëggul yooyu a a da ngaa dem niil ñu nar laa sifaay parce ñoom xamuñu niil maa xalla yi leen ko tàmmal bëri daan ñibbi kay boo niilee dinañ la mere waaw seeg ah ah ah daan jàpp daan jàpp daan ñibbi jàpp daan ñibbi supporters yi ay défaillant la ñoom victoire la ñu xam ñoom da ngay daan di daan di daan di daan di daan ñoom seen mbëddu daanu soulager gis nga gis dégg nga défaillant bi lu mu wax gis nga nee na soulager rek la ñu xam ñoom dégguma waaw waaw waaw yooyu amu fii victoire ah gis nga ah, moom moo ñu ko tàmbal ba pare maa ngi ñëw si yow yow sama gaan nga yow yow merci waay dafa nekk loo xamante ne tey jii bu la nit ki bëggul bu la yëgul am na yenn yoo xam ne ni sax du ko ci fekk waaw man loolu laa gëm ku la bëggul ku la yëgul amaana yenn yi du ko ci fekk waaw boo gisee ñuy sonn sama bés mm. ñu waroon a dem liggéey ñoom ñëpp toujours mm. war a dem dox ji soxlaam bàyyi seen lépp ñi nekk ci biir ñi nekk ci toogu añ yeeg ñi ni jàpp yaa ngi dégg ba da leen di jaral sax seen mbër bu génn sax yaa ngi dégg xadar bu nekk ñoom de am ñoo xam ne seen rongoñ sax day tuuru day sant tey jii nii wax dëgg neex yàlla ñoom bu ñu ko bëggee moo nekk bu ñu demoon tey jii ñu sañu jàpp daan jàpp daan ni bi mais amaana li ma doon sooxaale man mhm. barki alxuraanu kër ñoom xam ne ma ko jaxate yàgg ànd nañ mbapat yi yéen mhm. an ah, ñu ëpp bala pépinière mhm. barki Serigne Touba Mbacke billaahi wallaahi watallaahi nekkul waxul leneen nag de nekkul ne combat bi jàll nag leneen wallaahi azim bala pépinière moo la xam ne bëri nag man man wax yàlla suñu bàyyi bàyyi maag billahi wallahi wa taala bo bëri mom sa ay seconde wallahi lazim yo xam nga lolou ci man sayyidna jaxare mi and nañ ay mbabat ak ñeneen ak ñeneen ño xamante yag nañ and ay mbabat <laughs> man bu lamb bu wax dëgg barki Seydina muhammad hmm. billahi wallahi wa taala bu téye pa bi hmm. buntu këram beure loo ko ba mu xoox barki Seydina ban ban pa bi oh oh dama dama dama dama dama fam dama billahi wallahi taala buntu galam la ko fek billahi dama ka beure loo mu xoox dan ko jël bu reuy hmm. te mu ëpp bala fi ñe doole moko ko beure fuf kan roi soq soq moom. kan bu nekkee soq kan kan nga daan jël bu rek kan nga daan jël bu rek. paa bi paa bi moom soq. paa paa bi rek soq moom paa soq bu a daan soq bu wala da a doon nekkee xale nag kii daa mën a doon sox bu ndaw waay muy daana sox bu ndaw fan koy jaar xanaa da koo neexal xanaa dañoo complot non non non non xanaa dañoo complot waa ñëw waa ñëw waa ñëwul waa ba may dem sax préparé moo ko ñoom jiili ñoom jën duñ ma bàyyi ma fenn maa ngi ñoom mbedd face yi fekk maa ngi liggéey jamono ji maa ngi caaro yi ci machine yi waaw waaw machine ñoom ñooy tournoi yi dañuy def tournu gaale sox alquranul karim ma la nga oto bi ànd

loolu la fa demee. barke alxuraan. Hmm. benn instant san instant sa premier combat nga kan. sama premier combat. waaw. nga bëre kan. sama premier combat danger bu yëmbal. nu mu demee. nga jàpp ko daan. Hmm. deuxième combat nga am kan. sama deuxième combat njàpp. nga am njàpp. nga jàpp ko daan. waaw njàpp bu école booy eh, bi nekk ci grand magum eh, parcelle. nga jàpp ko daan. troisième combat nga am kan. troisième combat si permis ñoom la yaakaar na de ah. permis ñoom nga am. permis ñoom mm-hmm. troisième combat permis ñoom nga am. nga jàpp ko daan. Mm-hmm. quatrième combat nga am kan. Pape Sarr Pape Sarr numéro 2. bu bu bu jàmm gën. nga jàpp ko daan. Mm-hmm. cinquième combat nga dal ci junior. première défaite benn défaite bi nga am ci làmb junior défaillant boobu noonu dëkk jàmm gën moom moo la infligé sa première défaite défaillant la défaillant la boobu xam naa la su ma ne défaillant la rek xamal sama boy la sama boy la mais défaillant la moom képp sa yelwaan sa première défaite junior bu bu bés ko sow bu jàmm gën moo la ko infligé benn tache noire boobu nga am. Mhm. nga jóge ci defaruwaat defaruwaat defaruwaat ñu waat bëre si dal ci Balla Pépinière mhm. muy combat nul benn nul bi nga am ci sa carrière boobu tamit mooy li nga xam ne mm, supporters yi gars yi baaluñu la ko mhm. n'est-ce pas joxal ma waajee kii bi micro la. Mamor Mamor euh, sant bi. maam mu maama Lamine la ñuy wax. maama Lamine. waaw ah. nu mu nekkee maama Lamine. maama Lamine senior maama Lamine senior. woo. Ah. Hmm. bëre woo. lu hmm. lay woowee maama daas di fanaanal. Ah, d' accord d' accord euh, euh, maa ngi ñëw seet si Boy Lo. waaw waaw. champion bu ndaw bi. bu ndaw bi. bu bi. non moo ko def champion dégg déggu ma. gun fii. waaw amul mbër bu fi fii fii ay ay ay comédien ñu ngi fi. ay théâtre kat sax ñuy fi nga naan ma kërëb kërëb waajoo ju yor moto bi waajoo ju yor moto bi di di romb fii di rombaat fii du du comédien ah ah yaa lay def théâtre kat la fii lay jaar vir ak moto bi dafa nii vir théâtre kat la romb naa ko léegi place am waaw yow buun bii ay ndaanaan da hmm. jaar ñoo war a gerte champion buun na ay ndaanaan ay daanaka ñoo fi ne. waaw loolu xam naa ci dara loolu xam naa ci dara damay ruube nii waaye xam naa ci dara. buun buun buun na ak ndaanaan. ndeysaan sama grand Amadou Camara rek fii lañ daan rombante kooku rek amul lu mu deful ci mbapat. Thier mi ngi ngi fi tout près. Thier Thier Thier Joro amul lu mu deful ci mbapat. Jackson yàlla na euh, moomu muy wax Jackson moomu mu ngi woon nii tout droit boo nii tali Jackson moomu amul lu mu deful ci mbapat yaa may dégg kon buun fii. làmb dafay yàgg am doole. làmb dafay yàgg am doole. waaw loolu am na. mooy am booy ndaw yoo xam ne si ñu ci yoon bi wax dëgg neex yàlla leen di ñaanal ñoom tamit bu baax a baax lu ci mel kiriku. kiriku kiriku bu su lay bu jàmm moo këpp yalwaanam waa jàmm gën sonal nañ de waa jàmm gën sonal nañ gis nga kiriku ba mu taxawee quatre ans daanawul waa jàmm gën ñoo këpp yalwaanam yow nga tegalee quatre combats quatre victoire waa jàmm gën ñoo këpp sa yalwaan non lamb la de booy jàmm gën yi bàyyi leen jàmm gën bàyyi leen jaar jàmm gën da ngeen war a bàyyi jàmm gën jàmm gën ngeen de yëpp nañ leen de mënaguñ ko mu këpp yelwaanu kiriku junior ñëw këpp yelwaanu boylo boy yow bàyyil micro yi ba mu ñëwaat ci yow dama dugg jàmm ge waaw benn benn benn benn waaw waaw waaw waaw waaw waaw un un la waaw waaw yaa waaw waaw waaw waaw waaw garaaw waaw rakk ji ki ma ñëw seet si loo ma ci mën a wax booy loo loo ma ci mën a wax saa yaa ngi seet si champion borom baax borom baax borom baax di tey bu rombee fii ak temps bi lu mu gàtt gàtt gàtt dina ñëw bëree gaa yëpp toog ñun mu dee benn dix minutes la dina ñëw toog ñun te alalam du ko booleeg nit barki yàlla. alalam du ko booleeg nit hmm. mën a ñëw yëpp ngeen bokkoo. bilaay su mbaf yàlla. <coughs> lu mu am bokkul ko nit ñi. mu am da ngay bokk ak nit ñi mooy loolu te day yëg nit ñi day toog jël téléphone am kóol la laaj la ba jàmm wala yeneen ak yeneen mooy loolu def dara nag te boole wuñ si bilaay. daaw damaa liggéey wàcc ñu daje Kër Massar moom mu wàcc di ñu man ma wàcc di ñu bi ñu croisé ñun ñeente rek mu ne ma grand bi tabaski bi maa lay solal mu ne ma mu ne ma tabaski dinaa la jox tisi bu baax nga sol mooy loolu ma ko rakk ji non man daal madame man garaawul quoi man aliñëw ma mu ne ma kon madame dinaa ko jox tisi bu baax ma ñëw mu dagal ma tisi boo xam ne macha allah moom laa yóbbu jox ko madame ko ko moom la sol tabaski daal tabaski ren ma gisee xam naa daf may seen mais mais wax dëgg yàlla borom baax la daaw moom moo yëkkati tisi xoolal tisi bu seer mbasin bu seer jox ma ne mu yóbbul nawal ma moom baar ba yàlla fay xolam moom ah xam naa dama réservé fi ay mulu baala ngay yéene barke yàlla dañ koy te tamit buñ koy tamit mi tamit mën a bëreem kenn weranteetu ko oh, daa mën a bëre moom ñi mi entraînement kenn weranteetu ko jikko ji nga ne est-ce que yor na jikkoy taalibe la ma taalibe la waaw mu la a di continuer mais moo des loolu waxee dëgg rek caay-caay ji moo des du leer xam nga rek ni mu yaroo daara ja peut-être noonu lay ci làmb ji te tamit làmb dafa am réalité làmb dafa am réalité tam foog mu doon benn waaw yenn saa foog ngay foog ngay foog mu foog muy métti des fois waaw gis nga gis nga kon loolu daal moom mooy cat bi mais li ci des yow jàpp nga ni il dispose de tout ce qu'il lu ñuy ut ci mbër parce booy loolu taxaw ñuy laaj mbër mi donc lool du taxaw fenn ñu naan ana mbër mi xalaatoo lool kon le tamit mooy nga xam ne kii dafay liggéey mi ngi rey ci entraînement léegi nag tamit mooy tamit mooy tamit côté soutien bi gars yi nañu bàyyi di seetaan mbër bam bam ag ci ben niveau bi ñu ne dañ koy jappalé boy jappalé mbeur dañ koy jappalé ci bamuy door bamuy door ci 2 3 4 5 combat bobu nga ciy japp bu amé combat nga jëndal ko ñaari bloc ticket ñetti bloc ticket bu amé combat nga fayal ko 10 car bu amé combat nga nga yëkëti brick ne ko am pour euh, regroupement jour J lolu moy jappalé mbeur mais bo baye bam commencé fay ko ay millions nga ñew japp ci lolu la lay niru mais sirna ñun buñ fi hmm. lolu kay suñu problème bo yépp lañu kass mbeur buñ yépp ci dëkk bi micro mu ne la. ñëw booloo daa doon benn mais buun fii amul jàppale. fii nii saa nu mu kii ñoo ñëw kuloo kuloo ko kaar yi rek la ko affaire yëpp. noonu la fa demee jàppale moom moom la awul jàppale bee de gars yi ñu war a booloo daa doon benn buun fii mais buun fii gars yi seen booloo bi dëggul. joxal ma ko micro. waaw joxal ma ko micro li mu wax da nga koy dëggal. waaw Seydina li mu wax noonu wax dëgg neex yàlla loolu am na buun parce que tey jii nii mun ñu nekk ay tout di bay suñu bay suñu yite yëpp mu tay ji ñu lu ñu ëpp moo nekk làmb ñu bokk trop tamen tax ñu ci perte suñu temps rabi ba mu jaral ñu tey jii nii bala man yenn sa wëddu ma sama koñ bi ñu sax da fekk ay 23h wala ay 22h da ngay jóg quatre heures du matin nekk ci géej bi billaa wallaahi taala ànd ak ay pour su nekk foofu di sa bokk mais gaay bu ñu la war a geesu muy loolu man barke alcorane ko gis jëmuji ni ak jëmuji ne tok billaahi ak Maodo mii gars yi nii. boo yu bëri tey bul dugal ak esaat barki alxuraan kër ñu seen xaalis tey dugal ak esaat. ñoom ñooy jënd seen xaalis dagal booy tëj pour lan booy yéeg feesal feesal stade bi feesal kaw gi pour ñoom ñu yëngal ci kaw yow nga matal ko ci da ngay gis booy booy bi ñu yoruñu xaalis ndeysaan xale yu ndaw lañ nag ay tout tànk lañ jom nañ def yenn yi dugg ci biir kër jàmbur yi noonu ay jooyewuñu leen wala nga gis ku dañuy xëy boo seen saak dem jàng ñëw nekk ci biir koñ bi fii nii kap fooree la nga xam ñoom doo <laughs> bu sa dugg ci biir koñ fii nga dégg tey doomu diw fi ñëw jël seeg yooyu noonu <laughs> amaana bëri na fi mais doo doo ko gis hmm. sama koñ fii barki alxuraanul karim booy ay jàmbaar lañ ay góor yàlla lañ billaahi ay dóor katuwaar lañ ay dóor katuwaar lañ booy am barki alxuraanul karim lamb bu taxee billaahi wallaahi wa taala ñu jël ko xëpp ko ci barki alxuraan di dugg fu ne. Madou Konde nañ li ñuy daj xëpp ko ci combat bi jaxate mi fi la ñu nekk ba leen neexoon ji ñu loolu bañ leen ci fekk coono boobu mais da gis dañu wut seen këll jaar fi ñu dugg di ket ket barki alxuraan pour dajale dara billaahi lu raar dañuy def barki Seydina Mouhamed léegi ban mbër rarement ngay dem mi nga gis léegi ñuy ket rarement léegi mbër bi ci gën a bëri pour jàppale la mais ñu lu suñu problème jàppale la ñu am jàppale bi moo des jàppale bi dafa des trop trop trop trop billaahi mais nag lu ma leen di wax rek wax dëgg neex yàlla lu gaay naan cin bu naree bu naree neex bu baxee baxee xew waaw mais wallaahi azim incha allah bu soobee yàlla mhm. xaw ban ban bis la ñuy la ban bis lay doonaat de mhm. mais barke alxuraanul karim dama leen koy waata billaahi wallaahi wa tallaahi na seen xel dal te bis bu ma takkaatee ngeen bu génn fi barki Serigne Bamba billaahi wallaahi wa lu waay yor bu ko neexee na pare barki Serigne Touba Mbacke amay daal macha allah xam nga ñun ñooy say adversaire say adversaire ma wax dëgg neex actuellement ni ku ñëw baax na ku ñëw baax na de toute façon sa ñaari adversaire instant bi ñoom ñoo war a ñoom ñoo war a mais daal sañoon moom wax dëgg le 16 bii mhm. muy diggante abu Niasse ak Giro Seras non Abou Niasse tapet la yow yaa ragal yow yaay tapet yow yow boo boo ñemee ba Abou Niasse tapet la man la yow yaay tapet yow mais Abou Niasse yow a bëre am am doole ñeme entraînement boy boy boy non non non non boy non non non non waay ñu nangul lañ abu non non boy non non mais xamul wax ngeen am abu tapel la de abu la sa ñep sa micro ni dara nam abu la sa la ñu nangul abu ko ñu nangul lañ ko moom yaay tapet yow boy boo ko waxee tapet man la yow yaay tapet abu ndiass déguma do ndam sire rek lañuy abu ndiass do ndam la alquranul karim billahi boo jëlee oh. sama avance barki Seydina Muhammad di nga bëgg a dugg jàmm ngeen mu tëla doo ko defati doo ko defati day daw peloton day daw peloton merci mais yow yow yow loo yow loo yow dootoo tudd abu yow abu jaas dama koy duma jël ku ñuy yaakaar da ngay duma abu ñaas da ngay duma abu ñaas waaw nga jëlaat ba daaw seet si naa la fi nga ne Abou Niasse na ñëw ñu bëre ren ma seet si wàll nga ne Abou Niasse na ñëw ñu bëre te lii ngay wax ni ragal naa ni bés bu ko Abou seetaanee bés bu Abou seetaanee nga toog naan abu ñaase yow tapet nga bu mag yow yaa bu mag. a ah, ragal la da bu dee la ñuy wax ci moom dëgg la leen jël la ñuy wax ci Abou Niasse dafa mën a bëre dafa am fit dafa am fit dafa mën a bëre dafa am doole laajal Cheikh Super Jamono laajal Cheikh Super Jamono laajal Cheikh Super Jamono dégguma waaw merci merci booy booy yéen yéen da ngeen ci mën naka waa rek bés dof dofloo ba dugaat jàmm gën doot leen ko defati xam nga dugg ngeen jàmm ngeen junior kat seen yalwaan de de der der en junior der der la merci beaucoup merci da ngeen ci bul naka waar yéen boo leen xamul nu mu demee boo leen ci woon naka waar jàmm gën doo leen fa mës a jaaraat wala boo leen di génn yëmbal ngeen di jaar jaar caaro jaar feneen waaw mais nag euh, bu ñëwee woon di jël waaw moo giro bu ñu bëree dinañ baatewaat carte bi moo giro ki daanu ki daanu n'est-ce pas yéen pare ngeen pare ngeen ah eh? waaw dégguma waaw. sëba naturel. bu fa duggee ah. bu duggee kër Ibadou dafay maxe. mais daf fa dal am sa place maanaam. parce que kër Ibadou muuraay moo fa am. kon léegi la ñu xam. Hmm, dégg nga wala. day sunu ndox boo noppil dañ mu wax yow boo yow boo yow mën a wax la yow voilà euh, Boy Lo Boy Lo sa supporters yi dugal nañ la ci kàmb boo xam ne xaw ma la la fay génnee parce que déjà li ngeen wax nii déjà abu dana ko dégg te abu bu ko déggee promoteur yi danañ ci jot a ah. ragal naa ne promoteur bu seetaan lii pare ne abu ñaase ak ak ak nañ leen croiser parce que yow li nga ñemee li nga ñemee abu ba toog foo toog naan ko nii nee ne la sa mafia bi naan abu day abu boo bi nee na abu xaw ma bisaab la xaw ma day yëbbu xaw ma euh, boo yi ak yooyu noonu gis nga xoolal instant bi nag ragal naa ni ragal naa ni ragal naa ni sa combat ak abu dana taxaw à part abu kan mooy sa adversaire à part abu kan mooy sa adversaire suma sañoon waaw combat bi si njaago bis njaago la naaru sogaas waaw daan bëgg naa dégguma ku ci daan bëgg naa ki daan diggante Liss Ndiago diggante Liss Ndiago ak Naar Sogas ku fa daan yow Badou Boy Lo pare nga eh, loo mën ci ci ci naar bi eh, naar bi Naar Sogas loo ci mën loo mën ci Naar Sogas grand frère la ko waaw waaw mais loo ci mën loo ci mën grand frère boobu nagu non non bu ko ko waxaat eh boy to grand frère la boy man du ma morom nag non non du ma toog ngeen am ay Sogas nagu grand frère ñaata champion la fi jàpp duma daan naa soxaat bul tax ma limal la merci naxaate ko xam ne day jàpp duma daan bëre xeex duma daan nga ne kooku day naxaate da ngaa cibul naka wa yanda mi daan jàpp gaay di leen duma di leen damm yanda da daan daan do damm ko yanda daa war yanda ko daan naa soxaat kii cat boy bambara ya mana a cat cat cat boy bambara ya jira ko ko sira ko kara do jox ma ki micro jox ma ko micro jox ma ko micro boobu ku bëri wax jox ma ko micro jox ma ko boo ñëwee teel ko li ngay wax nii man doo ma dugal quoi man doo nekk fii di wax wax yi euh, maa lay jaar delloo ziar ah, tur bi nan la. Noorori Noorori non non indi beneen tur. Ah, Noorori doomu. doomu tur bi waaw doomu tur bi. doomu tuur bi tey maa ngi ñëw set si seen seen petit champion bi Boy Lo. waaw. grand champion waaw yéen yéen seen grand champion waaw. moom laa ñëw seet si tey euh, loo ma mën a wax ci Boy Lo. loo mën a si Boy Lo ma rafetlu jotaay bi mbirum mooy ma lépp di baal ñëpp àq bi dama dama tëlee lañ waaw ñaan ñëpp tabaski bii nii yàlla bu doon seen biir tey tabaski ñoom parce que ku ne lay séntu yàlla defal la ko yàlla jël si si saako di jaajëfal bu baax man nag ma loolu mënu ma si mucc rek quoi yaa mën a soob yow li nga dellu fii sànq ba la gën a mën a suñu ko yaa mën a soob kon yow boo mënee wax Sénégal toj de waaw yow mais maanaam xam na sama xol quoi lu nekk sama xol lan moo nekk sama xol maanaam buun fantôme yi fi mu nekk buun champion yi fi nekk te gaa mënuñu leen gesu te mënuñoo dem ñu lamb dañu am paar waaw parce que champion yi fi nekk te mënuñu boo xool leen seen kanam fële xool leen fële di ngeen jënte la xool leen fële regardez devant vous dégg bu leen ma xool bu leen ñu xool waaw xool leen fële buun dañuy mobiliser ñu mobiliser bu am nañ buun lépp a ngi fi waaw maanaam bu jaara si yoon bu jaara si yoon te lamb tey ñu dëgg mënul wala balagay wala keneen keneen maanaam bu bu jaaroon yoon buun dana produire ay champion ay champion ay ay champion waaw hmm. day def école toog di xool di nga xam ne nii carrément gars bu bu dee mën rek mi ngi fi fees na fi dell waaw loolu moom maa la ko nangul moom loolu moom sa baat ca kaw ah. waaw loolu waaw jaay ma si sa bi woon nag xala la quoi lamb moom si ginnaawam lamb moom si kanamam ko won ma fi abi mooy loolu quoi bëri na ko nag waaw ci niil bi niil bi bor bi waaw niil ku toll ni booy loo yóbbu leen ba stade xoolal ngeen bàyyi seen journée dagg dagg seen biir dem ba stade yéeg ci kaw ñëmbel ci kaw mu war ko matal ci mu niil sur kaba bi waaw ak bu baax waaw wala sama bideel ñaari bideel laa war a jël waaw parce que maa ngi woon ndox bali bali wala moo doon sama bideel laa jël fat bu si xala fat bu si combat bi ngir moom barki alxuraan karim dama man maanaam da nga feebaroon. dama feebaroon fooy xaar bu baax a fenn. ma jëloon ko dafa si combat ngir moom barki alxuraan karim booyee ko la lu waay yoroon ngir gunge ko da ngaa dindi denc ko mais rek comme ni bii wala ñu sonn si moom barki alxuraan karim tout tàng yaa ngi di moom bàyyi ma fen mhm. billaa walaay mhm. mais dara loolu si ginnaaw ko wane wala du découragé moom bàyyi duñ bàyyi moom su bàyyiwu leen doo moom mi fasu fasul yéen a kon yéen ak moom ba ba fan ba fu bëgg moom ba foofu noonu roi des arènes bi ñu dégg bi bi damaa xool damaa gëm ne allah loolooy mission bi. doo dégg tubaab na la saa ira. saa ira waaw. bon bu ma la compté bu ma la compté. eh eh bu ma la compté bu ma sa morom bu ma la compté. non non non non bu ma la compté bu ma sa morom. billahi dina ma ni wala nu ma gëm la ma. xamoo saa ira saagal. Eh, billahi wallahi. Eh, saa ira xamoo saa ira saagal. ah rek ah lu saagal lu ma. mooy ma loo mooy day ñëw. moo gën a ñëw. waaw saa ira moo gën a baax. maanaam dagul dik quoi loolu am wax. xëcc bu teeng bu dagul dik. dagul dik te booloo fi mu teey dafa teeng. waaw ce qui veut dire bu dagul rek day dik. jaaga naa la jow laa naa ci ki bu gaara jow kaam jëfe teex ji moom mukk. day sax bu kambe bi dalay dal ndeysaan boo dégg loolu dégg naa loolu yaa njaago nga njaago nga du ma njaago mais dama rax njaago da nga rax njaago mm. man dama may mbokk njaago sax dama koy boo laal muy lan mi ko jàmm del ñu noonu waaw ak parcelle bi jàmm jàmm gën moom nee nañ ñoo moom làmb man maa fa dem cero comme nii fa toogee ñu ne ma grand man leen naam ñu ne ma ñu ne moom làmb yàlla. espèce. réseau. expression pour la. loolu la pour la la ko jëndee pour la la jokkoo wax. waaw loolu ñu may. yaa ma gën wax lañ mën a yaa mën a sóob yaa mën a sóob du ma tëddee maa wax déedéet booy may ma tuuti non non non booy ndànk rek maa ñëw seen tuut na ñëw maa ñëw non non non defal ndànk booy def leen ndànk rek man doo leen ma waaxu déedéet may ma tuuti yow boo ne jàmm gën wax lañ mën a yow jàmm gën ñu dàq fecc ci làmb ji ñu dàq fecc ci ji boo doon génne non dafa non non da nga da nga wax nañ mën may ma non may leen ma tuuti da nga wax nañ mën a ma ñëw na ci jàmm gën ñu fecc ci làmb ji booy lim da nga ciy boole jàmm gën Siteu Mama Lamine ba nga lim may ma tuuti may ma tuuti rek Liss Ndiago Laurent Ndiago Balla Gaye ñoo taxe ku ci fecc nga ne waaw

mënoon daa fecc ba bi daa sax seen waa bari ñi waa Rebeuss bu ñu génnee rek mooy loolu loolu benn affaire la. waa Rebeuss mën nañ mobiliser. waaw waa bari ñi mën nañ mobiliser waaye jàmm gën a ñuy mobiliser. ba def ko sooy nekk dama ko tax boo ko defal moom wala doo. léegi ngay soxor nga ne jàmm gën wax rek lañu mën man maa lay nangul loolu man maa toog jox nga ne ma jàmm gën wax rek bu subaa ma dem jàmm gën booy na ma grand bi yow mooy loolu. sama yoon wàcc naa man kii barek alxuraan karim kan ak kan baa ko fay maa war a bëri moom amul combat Mbacké Faye bu parcelle fay wala ñang mbaalo ñang bëri ñang mbaalo bu bu dóor dóoraat ñang mbaalo ban bu teg daal wala bu dóor dóoraat dóor dóoraat ñang mbaalo bu dóor dóoraat ak Mbacké Faye bu rok énergie waaw yaa laaj ñooñu pour pour boyloo jox ko jox ko bu dee ñeme na jox ko jox ko teel teel ba xam ñeme nga rek yow Mbacké Faye la wax Mbacké Faye waaw nee moom nee na moom li ko gënal ci combat mooy yow ak Mbacké Faye ci biir géew arbitre sifflé génn seen diggante yow maa lay déglu. mais Seydina yow ma fàtte est-ce que la man maa la yor bi nga tolloo nii laa la xam ba léegi. waaw am na yenn yoo xam ne jariñu ci débat ko. donc kii Mbacké Faye la wax. Mbacké Faye la wax Mbacké Faye bu roog énergie. waaw Mbacké Faye. Mbacké bi moom dañu koy respecté mais fay bi na indi fay bi dong. séeréer jaamu tukulóor la séeréer séeréer jàngu tukulóor la alhamdulilah Mbacke Faye Mbacke Faye Mbacke Faye moo mën lu bonte di ko def Mbacke Faye baaxul ci xale baaxul ci mag Mbacke Faye baaxul ci xale baaxul ci mag waaw Mbacke Faye day takk Mbacke Faye day jongale Mbacke Faye ah non non non il a lan la jour babi la jour babi kan mooy jour babi Mbacke Faye Mbacke Faye mooy jour babi billahi jour babi la Maka Faye ngay traité de jour babi jour babi la da ta ko defati billahi wallahi taala boo ko manipulé wul du def dara kon ni nga jour babi la boo ko manipulé wul du def dara Maka Faye billahi yaa wax loolu du puus du paas léegi yaag moom barki alquranu karim maakum na taxaw billahi maakum na taxaw wallahi doo pël bi lay waxal de pël bi pël Euh, sawaay nee na sa diggante ak Mbacke Faye pare nga pour Mbacke Faye dogal lu ma la wax Seydina waxal dama ne yow waxaatal da nga da nga fàtte doomu pël bi fàttewuma la fàttewuma la damaa xam Mbacke Faye damaa xam Mbacke Faye damaa xam Mbacke Faye ci mën du bon booy woowu noonu mën gën ko féete xale yaa mën Mbacke Faye billaahi gën ko féete xale yaa mën Mbacke Faye yow yaa mën Mbacke Faye maa ko gën a féete xale tamit foofu fan nga teg ne yaa ko yaa ko mën yaa ma yar yow yaa Mbacke Faye maa ko yar Mbacke Faye maa ko yar mais loo yar yar Mbacke Faye waaw mais yow man sa keppaar laa ni ma la xamee noonu laa ko xam keppaar laa juddoo dangaa xam kañ laa xam Mbacke Faye waaw dama laa xam yow boo xamee Mbacke Faye dama ne sa keppaar laa juddoo yow xam nga est-ce que xam nga ni Mbacke Faye amul yërmande soxlawu ma dara ci yërmande góor yàlla wax si waay soxla woo yàlla kon yaag moom bu arbitre bi sifflé woon seen diggante barki alxuraan mu teg bakkana ma teg sama bakkan ku mën yóbbu bakkanu keneen ku mën sa morom yóbbu bakkanu keneen da ngaa bëgg a yëpp parce que temps yi euh, booy li ngay laaj ah. si faay ko seen place. merci ay Ndiri Mbacké Faye maa ko gën a pare fuuf yaa gën a pare Mbacké Faye yaa ko gën a pare wallaahi doomu Casasin bi ma joxal ma numéro booy bi joxal numéro booy bi booy bi booy bi booy bi taxaw fii li ndalu sànq ba tey joxal ma ko numéro bi joxal ma ko joxal ma ko numéro bi waaw kay waaw kay waaw kay booy maa lay su ma sañoon na nga yëg ci kaw quoi gars yi xàmmee la quoi parce bu ñuul xaw ma jëli bu su ma sañoon nga toog ci kaw quoi voilà voilà voilà waaw waaw duguñ ci lamp yow présenté woo goo sax

ndaanaan le prince de l'arène doomu Modou Lo. parce que Seydina Mohamed kii doomu si la am mooy roi des arènes moom mooy le prince des arènes. Petit Lo waaw Petit Boy Lo. ay seen combat lañ am. Kalfa dof bi Kalfa avance am dugg na fi. kaw du gémar daal parce que Seydina Mohamed al. kaw du gémar avance avance am dugg na fi si café laa la wax. parce que Seydina lañ des ñu jox ko booy ñu naan. parce que Maguette Moussa waaw. Petit Niang la jox avance am mu waaw teg ci birig daw kay na noo. waaye waxuma lay wax Petit Niang man doomu Paul bi laa lay wax kii laa lay wax. appel bi. man lañ jaago bu ñuul bi Seydina boo dara yem ma baxoo. waaw waaw waaw léegi waaw waaw booy yow sa temps de parole jeex na yow sa diggante ak yàlla yow. waaw kii Boy Lo. waaw ku tegoon avance ku jëloon avance su Talfa. <laughs> gamer bi dof bi Talfa. ku jëloon avance am teg ko fii. loolu moo ak booloo yow est-ce que ñeme nga cee lekk 1000 francs déglu ma la si na waaw avance su talfa bu duggee fii ñu sekk si tama li def ñu jox ko boy yi ñu jël si tàngal laa la wax kon nga dee de avance su talfa avance su gémer bi avance su talfa su duggee fii ñu sekk si tama li def ñu jox ko boy ñu jël si tàngal musul daanu musul daanu musul daanu musul daanu ñu jëlee wàcce ba ci suuf yow yaa koy wàcce barki Seydina yow yow yow yow yow yow yow yow yaa koy wàcce yow yaa wàcce talfa yow barki Serigne Bamba talfa lu ngay daan lii daan talfa mi ngi fi barki alxuraan kër mu ngi boy ñu ngi sekere billahi wallahi déglu ma la sekere man ci booy laa la wax du dara lu koy daan mën waaw yow da ngay théâtre yow moom loo wax garaawul yow moom da ngay théâtre yow ku la gis man ma ma tudd ma tudd théâtre kat bi laa xal booy yow da ngay théâtre waaw da ngay ñëw toog bu dee da ngaa wóor sa mbët da ngay ñëw toog Seydina wóor sa mbët da ngay ñëw toog Seydina waaw waaw xam Seydina Mbawar Mbawar yi dama xam lu seen galaaj da ngay toog Mbawar ñun ñoo lay sotti suuf ñuy jaay ñun dañoo garaaw de barki Seydina buñ sotti suuf ñuy jaay la Mbawar Mbawar dañoo garaaw de ha Seydina góor a sok taxaw na fi fukki at taxaw na fi fukki at yoo xam ne supporter am mosuñu génn dem supporter ji ñëwaat sëngéem saa yu ñu génnee ànd ak góor a soog buñ ko gungee buñ demee stade bi ñëw dañuy jubilé may ma tuuti mboor mboor yaa ngi wax mboor mboor kii booy bii jeex jàmm mosul daanu sept combat sept victoire sept combat sept victoire pour jeex jàmm talfa mosul daanu cinq combat cinq victoire kon moocu leen Seydina hmm. yéen lamb ji buñ si duggee di maytu ñu bakko laa la wax kii du ko ci làmb pour lu yomb am dafa ko ci làmb dara. yow kii doo gën a jafe yow kii boo nekkoon gaayanam yow kii boo nekkoon gars yi di ko utal lu tane di nga ko utal lu tane. combat bi paas xam luñ ci teg. waaw loolu waaw. Pape dina dem da ngeen defar ticket yi 5000. waaw ngeen mu daan leen. ngeen defar ticket yi 10000. yu 15000. ngeen de yu 15000 francs. defar wala ngeen de. boo ko gisee xam nañ koo liggéey gore ngeen ko jaral gore de barki ñu defar yu vingt cinq mille laa la wax dem dem ak moom defar t-shirt yu vingt cinq mille dem stade yëngal ci kaw ñu mu matal ko ci suuf ko laa wax ndax kii folokaas bu doon vidéo dañ ko defar ndax kii man lañ bu joli borom laafiya fugu dor bom borom yu men dan satya borom ni man e man tous man dara man nas bu ci lam pour yo barke sayyidina muhammad bu ci lamay ragal dara ñu tekko fele sayyidina ala wa bu lu tax bëre ay théâtre kat dedet sayyidina yow man ngi yow sayyidina man la xam dara faral ñogu nopi non non nopi nopi nopi de boy sayyidina sayyidina sayyidina wa wa ñoo fi pour da bëgg deg wa wa wa waxal wa wuyo ma bun man jaloor lay wuyo hmm. bun jaloor lañ dëgg ndeysaan mo jaloor ndeysaan yëpp ben la jaloore mais kii la ñu topp boo doore la ñu topp ndeysaan barke Seydina Muhammad kon instant bi promoteur yi nañ ñëw jox ko combat nañ ñëw jox ko combat barke Sey loolu la loo wax autorité yi autorité yi Kër Massar Boune Yeumbeul lan nga leen di wax ci booy ñëw jàppale kii champion bi ñëw jàpp si waaw dañ jàppale waa Boune waa Boune bëri na ay champion mais ku leen teg loxo amu fi ku leen soutenir ku leen pousse ñu dem loolu moo leen manqué kon gars yi ñëw nañ ñëw jàpp sa kàddu rafet na merci beaucoup joxal ma ko micro bi donc maa ngi ñëw ma booy bul dellu de noppil maa ñëw si yow loo loo kon wax ji rafet na ah. loo kàddu gi benn la dafa mel ni mais nag loo loo sa gars daa mel ni tam yow gars yi ko sa gars yi góore na dogal li ma wax sànq commencement ko na affaire waay na ko affaire bañ kat wala daal parce que yow tamit bu dul dara yaa ngi xëy di liggéey sa liggéey te tamit sa patron bëgg na la am na ci yow yërmande te jàpp naa ne sa patron seetaanu la kon am na nu mu doon demee nga jël làmb ji soofantal ko nekk ci sa liggéey di ci am sa sutura mooy loolu mais da bëgg làmb waaw man ma nekkal suñu place yi barki alxuraanul karim billaa wala taala dañ maa bëgg rek te yàlla tax sama champion bi wax dëgg neex yàlla tamit maa ngi koy ñaan suñu borom may ko combat. kala ci yàlla suñu borom may ko ndam kala ci fils de Max fils de Max mais mais gëj ko fekk fee de Kër Massar de waaw événement bi ñëw na jàppale ba mu bëree grand combat ba léegi digganteem euh, euh, euh, Batista ba tey bëree waatul mais c'est xam nga lamb dafa tëddoo benn côté mu nekk nag tey jii nii ko am mbër bu doon bëri tey daan di daan billahi te ñëpp aduna bi yëpp law axlu lamb bi ñu xam ki champion la mais bis bu ñaké rek gaay yi dañuy daw gén mais tay man leer na ma lér yalla bu daanoon tey Batista barki alcorane kër instant bi bëriwaat na instant ñu ci benen level ak waaw parce que lamb dafa tëddoo benn côté boo xamante ne tey ji mën naa kumba nday am la kumba ba am day nday ba amul nday lolo fi na ci lamb ji sa way tay ji waru na bëre na sa waay lan lay daw kan sa way mo nek ki ñu tuddu sa Allah ci duru Doudou Sané Doudou Sané ak kan Doudou Sané dem jël duru Sané ak kan Doudou Sané fi sa max ñu waru na bëre ku sama ki dof la moom da xam naa ne ñeme risque la def wallaahi la de ni koy gisee noonu moom fukki duuru saane fit la rëy moomul fukki duuru saane fit la rëy booy boobu ñu génne gaam googu noonu mais li may boo xamal moo nekk sëñ naa yàlla suñu borom waxut dara mais li ma bëgg wax booy ma ne la kenn dara voilà bu ñu yàkkamti dara tamit ñu ay tut tànk lañ tolaguñu fu ñuy amee bay ñàkk bis waree am barki alxuraan yi sëriñ bi laa wala wa taala bu ñu bëgg a diggante day sotti te lu ñu bëgg tamit dañ koy am. yaa wax loolu mooy demee kon wax ji message bi mooy supporters yi bu ñu xaddi bu ñu bàyyi. noonu la xam ne Boy Lo mi ngi ci li mu war a nekk. buñ ko yëgee ak buñ ko yëgul yow yaa ngi ci li nga war a nekk. waaw loolooy wax ji. parce que ñoom bu ñu bàyyi xel sax sama combat yi ma doon bëree. dama doon entraîné di jaar nii li daa doon jaar ñu fekk leen fii nii dugg sama biir kon dañu la gis ma tax rek suuf. mais lamb ji ko

ma fen jazz du ma bàyyi ma fen waaye école tamit du ma bàyyi ma fen dama doon kontaan benn combat ñaari combat ñetti combat damay tëdd di jooy barki billaahi su nekkee li may wax du dëgg yàlla bu ma amati ndam ci làmb damay tëdd jooy billaahi parce que gars yi ñu xam ne booy bi blessé bi mét na mais seet ci boppam dafa ma doon wax dañ koo woo téléphone ne ko te booy ba mu ñëwee tey jii nii bëgg naa kontaan mais mënul kontaan gars yi ne ko la ñu dafa amee problème addicteur barki yonent bi billahi wallahu taala mo ñëwaat ci lan dëgg mu wax expliquer mako mu nga amé arrêté ma ne ko waaw mu ma kon bu contact ma ne ko damay contact mu bëre ñaari combat xam ñetti combat la bëre la contact tek sama ngëm tok non ci gaay billahi wallahu taala mais man lima gëm gëm gi ma musa am gëm musa musa am mo nek ni man boy barki alcorane ko fuñu ko japp jël do la fa may démé lambu jo mais faut pas la am ci lambu ji arrêté yeungu barki alcorane ko ma sama lambu mais sa way mako nañ kii combat juróom benn mais garaaw yàlla baax na jox ma sa waay bi rakk ji maa lay ziar tur bi nan la waaw naan sëñ bi sëñ bi nuyu la naka njaboot gi naka waa kër ga waaw yéen a ngi am jàmm mon maanaam moom koor xanaa jumaa ja nga jóge jàkka day saan jóge ndeysaan ah. demoon matal waxtu yi ndeysaan ah, hmm? ah. mon père nan ngay ak waa koñ bi waa koñ bi hmm. dégguñu la de waxal ci kaw waa koñ bi hmm. la nga xam ne lépp dëgg ñoom duñ tooñ mm. tooñoo ñu kenn mm. yabaluñu kenn dañuy tooñ di def suñu tànk yi ñëpp ci biir waaw ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay kon lu jafe nii nag kon lu mel nii mu am jafe na moom dëgg yàlla yàlla moo tax may wax kon lu mel ni dafa jafe dafa jafe trop kon ban nga teg ni kon lu mel ni dafa jafe non dama façon koñ bu nekk dam naa fa mm-hmm. waaw. am am na ko ñoo xam ne lii amuñu ko. Mhm. ak seen dinaa mu xam. waaw waaw toog booy ñëw. waaw waaw waaw waaw waaw waaw. booy tamit ndaje laa la amaat. booy tamit léegi léegi ñuy dem. ñu gën a gën kawe ñu gën a gën a. loolay àdduna. seen dinaa mu xam loolu moo ci des sama ñëw. wax ko na wàññi kii bi day génnaat ci kii bi wax ko na wàññi kii bi wala mu fay ko. loolu moo tax ma jógee fan ma ñëw fii. ak seen dinaa mu xam ne. gars yi jàmm rek lañ am. loo ma mën a wax ci mbër mi mbër ma ñëw ñu seet si tey muy Boylo seen mbër mi. Boylo. Mhm. gars yi nee nañ grand champion man petit champion laa wax. non champion la. Mhm, ndeysaan. champion la champion la. champion bu mat champion. bu mat champion. parce mhm. que Seydina Mohamed. Boylo xol bi rafet na. waaw waaw waaw bëgg na nit ñi. waaw bëgg na booy. waaw boo fekk booy day kaf day ree. waaw ñun tamit ñu ànd moom sonn si moom trop. ndeysaan. parce que Seydina Mohamed. ndeysaan. gis nga nit mhm. da ngay waxal jikkoom mhm. doo jékki-jékki bàyyi ko moom te ginnaaw nga ne ko eh, kii de diw dafa baax non non bàyyi nga jàkkaarloo face à face nga wax ak moom mhm. gis nga nit dëgg tamit ñu ànd dañu waxante dëgg xaw baax la kii jëmu wi lu tax ñu sonn si moom xol bi moo rafet xol bi rafet te bëgg nit ñi barke Seydina Muhammad moo tax ñu sonn si moom lu mu xew la dañ ciy takk nit woon na yàlla. waaw léegi daal wax ji wax ji mooy gars nañ ñëw jàpp. gars yi nañ ñëw ñu xam ne kii Boylo doomu Joola la doomu Buun la. Mhm. ñëw ñoom ñëpp ñu ñëw jàpp. Mhm. woon na yàlla ñu jàppale ko. Mhm. mën mu jéem a dem ci taw ci kanam. jàppale ko mu jéem a dem ci kanam. loolooy wax ji. jàmm ci yow. joxal ma ko sa waay micro bi. théâtre nga lu neex na jeng wa théâtre nga lu neex rek di lo lo lo lo lan ngay tëjee tay lan ngay tëjee ñu wajalat parce que benen yoon su ma ñëwee nag dañuy dem ah, wala ñu dem salle musculation wa na la fa démé waaw di santaat yalla bu baax rek mhm, mhm. di ñu sama gaay bu baax baax mhm. am boy yoo xam ne tabaski bi jëm am na yoo xam gisal gisante maa ñu am ñu gisal fay sax ñu maa ngi diggante téléphone dal dal leen doon leen ñëpp waaw waaw leen ñaanal ñoom ñëpp jàmm tamit bu baax a baax. te gis naa tamit yéene bi tamit. gis naa tamit li mu bëggal. barki Seydina Mohamed. dëgg la sax bëri naa de. mais man mun naa wax ne comme bi sax yéen saa su ma bii génn sax barki alxuraan tamit damay xaw a am jaage tuuti. parce loolu xam naa ne ñoom xaaruñu ko woon ci man. parce que dama doon toog ak ñoom ñu naan ma fayal bor bi fayal bor. dama leen di romb ñu naan ma fayal bor. mais yàlla ak ndogalam ak jaam ak pexem dinañ bëggeewaat bu baax a baax a baax di nuyu sama gars yi yëpp jaajëf lu ci wax dëgg neex yàlla day sonn sama combat jaxate jaajëf booy ñum ñëpp waaw lu géré barki alxuraanu kërim mu tudd sax anam bamba kooku moom mooy sama sarax moom wax dëgg neex yàlla kooku moo sama sarax la moom waaw mooy bamba mën na ngi sarax sarax ñaa la ñuy wax moom waaw di ñaanal ñëpp gars yi jaajëf waaw bu mel ni ñoom xaar tamit waa buun ñëpp waa xayra dental yaa ngi dégg ñëpp maa ngi leen bu baax a baax waa los da ci mel ni ñoom ci tribu tribu ak booyami su ma amee combat dañ ciy sonn nice barki sëriñ ay jàmbaar yàlla lañ tey góor yàlla lañ tamit ay borom baax lañ naan tribu mbër gëm naa ne incha allah bu soobee yàlla defet bi ni mooy def mbër ki nga nekk sa rukk moom wax dëgg neex yàlla nekk fa rek te ñi nga doon àndal démb tamit day ànd ak ñoom bul trahi kenn bul nax kenn yaa ngi dégg loolu mooy làmb bul gëm ne nit sax moo la mën laa yàqal sa carrière gëmal ne yàlla sunu borom yaa ngi dégg lu mu tudd sa biir dund rek jàppal loolu mooy am di daan ñaari combat maa ngi tëral naa ko benn la maa maa daan benn ma ñëw mat suñu te teewul ne chaque jour maa ngi gëm yàlla jël tamit wakkiirlu ci moom dénk ko tamit sama tamit moom laa koy sant moom wax dëgg neex nga gëm yàlla wakkiirlu ci suñu borom yaa ngi dégg dénk ko tamit boppam tamit moo xam ne lu dul yàlla rek nen la te ñu doon àndal démb ak barki démb na ànd ak ñoom rek yaa ngi dégg naan puy tamit lamb tamit lii la mais nag mere ko trop benn côté moom xale si sama puy doo mhm. mere ko trop lamb tamit wax dëgg neex yàlla mhm. nit ki du mën naa ko dama ko war a jàpp duma ko humilier humilier yow kon humilier mbër mi parce bi ñu ñëpp dominer dominer quatre-vingt-dix minutes temps additionnel ñàkk waaw encaissé benn bi ñàkk yow gis nga lamb ji nu mu demee maa ngi fa woon sama gaay la sama lonko la wax dëgg neex yàlla damay toog wax jantal booy la waaw ñun yenn sax dem entraînement yaa ma gën a xam bu mhm. gis lu yoon sax ci man ma xaw ma cee mere mhm. mais ma xam yaa ngi def su ma ñëwee tey ji ni muy loolu avant sax mu ma jiitu ci lamb mhm. mais nag muy loolu mais di ko ñaanal jàmm moom tamit naan ko bu ëllëgee mu xam fu mu teg tànkam yaa ngi dégg muy góor jën maa ngi koy ñaanal victoire bu mu jógee yàlla na ko jig mu nekk ay victoire yi victoire mhm. di ñaanal waa équipe bi yëpp jàmm mhm. ñaanal tamit waa équipe buun bi yëpp jàmm dañu mel suñu grand frère Thier mhm. yaa ngi dégg ñoom Abdou Seck gaz yëpp maa ngi leen di bëggee ñoom kam dooyi gars yëpp bàyyi ma ci kenn ñoom Saliou yaa ngi dégg Saliou bu mag ak Saliou bu ak coach bi ñun ñëpp maa ngi leen ñu fekkee école bi doo xam ne kii mooy mbër na kii di bëgg ñoom laa laa sama doomu ndey la wallaahi naa si sama combat yëpp day bàyyi jiitam yëpp ñu ñëw dem stade tërëm wata daay ñëpp waaw ñëpp maa ngi leen di bëgg daal ku lim dee juum da ngay fàtte daay dañ ku lim da ngay juum mais ku lim dee juum da fàtte fàtte moo fi nekk gaa yëpp maa ngi leen kep go koo xamante ne ngi yeewoo buun yaa ngi dégg dendal xayra lepp lo xam ne buun rek la yaa ngi koy di tak ngem barki Serigne Bamba yaa ngi dégg maa ngi lay nuyu dila beugé bu baax baax naan la gis nga gis na ni ngeen ni ngeen ma tiyé di ñaan ñun ñëpp jàmm jaajëf sama doom lay ko ma ko ñaan di ñaan la sama boy suñu ma sama boy nga xamne ne ñu lay àndal suba ngoon guddi bëccëg yaa ngi dégg fu ma amee lu rek ñu ñoy taxaw suma amé lu nekk tamit ñoom ñooy taxaw dinañ ñaanal gudd fa rek wër ko yaram yàlla suñu borom bàyyi leen ñu am jàmm loolu rek mo te jàmm jooju noonu ma koy ñaan yàlla suñu borom yàlla na fi sax tamit rafet na jàmm ci yow sama gars yi l' émission tira sa fin tey ñoo ngi woon fii ci yëmbal buun Kër Matar marin seen émission lamb rek bëri kese ñu ngi ñëwoon waaw ma mhm. ñoom sama place mel ñoom góor a ñoom grand amar yaa ngi dégg waa place bi ñoom Sané Baba Sarr ñoom Moget yaa ngi dégg Sagna Lamine VIP ñoom maa ngi di bëgg baax ñoom grand Mabo ñoom ñëpp ay borom baax lañ wax dëgg neexal sama ñoom yaay bu ak sama patron ñëpp maa ngi leen di bëgg ak ay soxnaam ñëpp maa ngi leen di siyaar di leen bëgg bu baax a baax naa leen déwén ci leen yàlla nañu yàlla boole jégal te ñu ay déwéni déwén ay borom baax lañ wax dëgg neexal fekk naa leen ci place bi tamit téew nañ ma teeti nañ ma tamit tey ji lépp loo mën ta xam ci place bi ñoom ñoo tax ma xam ko uh-huh. di leen bëggee ñoom ñëpp bu baax a baax a baax sécurité yi ci place bi ak ñoom waaw ba ci beneen place bi ñoom majaw uh-huh. yaa ngi ñoom yaawóor ñëpp maa ngi di siyaar bu baax baax sama grand frère Ibrahima nekk fi mu Casamance instant bi maa koy ñaanal jàmm fu mu nekk di ko fa ñaanal jàmm di ko fa ñaanal jàmm naa ko jàmm ci yow grand bi jëf rafet na sama gars yi mi ngi noonu l'émission Touba ça prend comme ni ma leen ko waxee booy loolu lañ ñëwoon seeti ak moom waxtaan waxtaan nañ ak moom mafia bi tamit wax nañu seen doléance sama gars yi mbër maa ngi xàmme leen ko ràññee leen ko bàyyi leen ko xel bu baax a baax a baax xale bu ndaw la gëm na na li muy def mi ngi ci ci suuf di sa kaw sama adversaire yi lay waxal nee mi ngi ñëw dal seen kaw waajal leen bu baax a baax promoteur yi dama di lancer appel jox ay combat combat mu dugg ci lamb ji di bëre di wane boppam sama gars yi lii la woon fii la woon ci buntay seen émission lamb rek bëre kese avec Boy Lo joxaat di dëgg ba beneen yoon jaar jaaraat yaa ngi jël sama gars